voilà tey dañu contane lool parce que dañu am ay gan yu am importance euh, tey li tax ñu ñew moy seet naka lañu relancer économie bi xam nga Covid dafa yàgg te metti. yéen journalistes yeeg borom bokk nañ ci financement pour l'instant hein mais borom xar yeeg borom euh, restaurant yeeg ak tout tout le monde a été affecté terriblement l'ol mo waral chef de l'État wote hier à Diamniadio bëgg duggal dans l'économie 300 milliards xam ngeen le fonds yépp fonds Covid bi 1000 milliards la woon waaye loolu kii la woon résilience maintenant dañu ne résilience mooy nga taxaw mais ay nag relance mooy nga dox léegi dañu bëgg a dox je dirais même dañu bëgg a daw loolu nag soo ko bëggee def dafa laaj nga am projet d'abord laaj mel dafa laaj nga am financement loolu moo waral tey ñen ñetti euh, euh, xaalis yi lënkaloo muy euh, FONGIP nga xam ne Doudou Ka moo ko dirigé ak l'IMSEC nga xam ne Ousmane ñoo ko di ak ak ñun la maire de Sandiara bëgg nag dugal 100 millions de francs ci économie bi su ko defee jigéen ñi d'abord 50 millions yoo xam moom lañ leen di jox dañu daal di commencé dem liggéey préparer campagne melon campagne pomme de terre ak campagne fruit ku ne xam ne sànjara melon ñu def Sénégal yëpp presque sànjara lay jógee. day permettre aussi jigéen ñu commencé jël seen cantine commencé liggéey préparer marché bi nga xam ne lu ñu bëgg a tabax préparer aussi les nouvelles cantines yi ñu bëgg a tabax préparer aussi restaurant yi ñu war a def ci port bi ak restaurant yi ñu war a tabax ci marché bu bi ak ci aussi zone industrielle bi Sànjara dafa nekk zone boo xam ne économie dafa nar a am doole at yi ñëw waaye aussi xale yi mécaniciens yi les menuisiers ak ñëpp ñoo xam ñoy liggéey fi à Sandiara même les trams ak les chauffeurs ñoo ñep dañu nar a bokk ci fond bi fond bobu nak liko wara tax liko ko tax moy jóg kenn dootul tok sa kër ne ma aw def parce que aw ma xaalis aw ma am ma pare loolu moo waral ma bëggoon gërëm vraiment ñi nga xam ñoy nos amis de l'IMSEC du FONGIP ak yëpp toute la population de Sandiara leen won que déwén nak dañu bëgg dépasser fofu dañu dañu bëgg a jugal 500 millions ci économie bi pour préparer le futur parce que soo bëggee préparer futur bi dafa laaj nga préparer bu baax a baax loolu moo waral ñu tey ma woon euh, toute la population les femmes woon les jeunes les artisans yëpp ñëpp nekk fi tey pour nous def ce financement là. y a aussi lépp ce xam ne li nga le projet OBS, la zone sport Sandiara bi ak HLM yi HLM yi dañoo bëgg fonds aussi taxaw pour mën avec le Fogalog nous avons am garantie pour nous, nous xam dañoo bëgg a de kër ci 850 logements nous ñu nar un mois inshallah lolu aussi dafa nek lo xamné projet bu bess la ma ci gëreum aussi mon ami euh, Doudouka. xam nga depuis 4 ans euh, Sandiara dafa dañ ko élire ville la plus propre chaque année dañu dem ci lolu yëg ngeen amon nañu ñaari camion poubelle déjà embauché nañu mot 20 personnes euh, li ñu des maintenant moy egg ci li nga xamné moy l'opération ville propre bi lolu mo waral ñu indi won 20 poubelles ak d'une valeur de 10 millions ak lu 300 râteaux 300 pour frères 27 groupements yi nga xam ñoo nekk à Sandiara am du matériel pour travailler loolu moo nekkoon c'est seet loolu 20 c'est une valeur d'une valeur de 10 millions de francs suñu xaritu Clermont-Ferrand ñoo ñu ko indil nga xam ñoom suñu partenaire lañu. incha allah dem en décembre à Clermont-Ferrand dem maintenant gërëm leen d'abord maintenant commencer négocier li nga xam mooy sama usine bi nga xam moom ma tere nelaw l'usine de recyclage et de traitement des ordures de Sanger Inshallah année prochaine nous ko taxawal.